Chacho, chacho, chacho. Chacho, chacho, chacho. Chai sama ya gidi hora. Ini dapat dami ai. Malagay la ni joy ta no pegunyo. Yuso, yuso, yuso, yuso. Dami ai tal fala yo. Yuso ge. Safara borom ge jawai. fatam borom yambal e waayi may tambale ti daar mak leen fayaay ñaay mosa jërëjëf sanga waay jërëjëf merci jërëjëf way da leen ma mosa mosa los jërëjëf mosa tay ma dila joobe kay kay joob jaay jaay musa lo raay wayal leen waa gaay toog leen Lamine Lamine jërëjëf Lamine waaw ki la bëgg jar na taw ba dee ndax ña a bañ Youssou Ndour jàpp leen jërë ngeen toog waaye ma ne waa jàmbaar dañoo bëgg Papa Ndiaye ay de bu ba ñu xewle woo ko waaw fan yi nag incha allah. waaw ma di leen xamal ni dafa am benn morceau bu bees bu ma way. Mansour Ba. tourné nañ clip bi ba pare incha allah buy korité desee juróomi fan dina daw dina daw ci marché bi dama bëgg ñëpp di ñu làmb jàpp ci jaajëf. Talba waa waa kaay to Youssou lii du yomb de lii du yomb de Cheikh Omar Talfa ak Youssou waaw du ci mën a ñàkk combat bi moo toll noonu mais lépp ci jàmm lay am ma ko lépp ci jàmm lay amee ah waaw mënu cee ñàkk caatu Boston ah kaay kaay caatu Boston daa mel ne nga 嗯。